ñu ngi xaar mu ñëw kon Abdoulaye Wade incha allah dina ñëw kon àllarba mais ñenn ñi nag jàpp nañ jàpp nañ ne est-ce que du wàllum provocation daal Abdoulaye est-ce fi mu ñëwee nii baax na. non d'abord c'est normal ñëpp ba gisee Paris waxoon léegi mu ñëw waxoon na la fi weer wala weer weer weer genn wàll ah, loolu période boobu rek la la tombé ah bu mu bu eh, gisee Paris ba léegi et ensuite bon ñu ñëpp aussi duñ ko doon xaar xam ngeen. bu baax euh, euh, situation réew mi réew mi metti na euh, lu nguur gi aussi jàpp doomam ba léegi gisul doomam ci kaso bi loo doomam du am responsable ci parti démocratique sénégalais gis ngeen ni aussi nguur gi pare na neen daf koy jugé gis ngeen élection locale yu ñuy yu ñuy préparé yi ak dëkk bu metti bi loolu yëpp war na tax quand même moom mooy suñu secrétaire général national donc on va tax moom en tant que principal patron du parti démocratique sénégalais mu pour taxaw ak ñun ñu pare eh, élection yi préparer élection yi. préparer élection mais est-ce que euh, Abdoulaye Wade parce que dañu gis président yi fi jot jaar muy Senghor muy Abdou Diouf euh, ku ci pare dal da ngay retiré wu sax ci scène politique bi dem toog euh, bàyyi tamit sa parti tam dal di doxal moom xanaa ñi mu ko dénk nii dañoo feesul seen seize ñoom Umar Sarr ak ñooñu wala euh, Ablaye daal il faut mu ñëw rek. xam nga parti démocratique sénégalais yi dafa am histoire depuis 1974 euh, mu nekk principal parti d'opposition nekk euh, après jël pouvoir bi. Mm-hmm. ñu perdre pouvoir bi dans des conditions yu ñëpp xam. Mm-hmm. bu ñuy perdre pouvoir bi côté yooyu defuñu defuñu woon congrès defuñu woon préparé nu woon vraiment carte yi donc il faut que Blangui, joxe nous mhm. ñu def euh, congrès ñu fal un bureau ñu section unique, c'est-à-dire département unique, nekk commune unique, nous ñu un bureau PDS euh, suñu défé lolu def bureau politique def secrétaire national nommé comité directeur nommé en même temps le nouveau secrétaire général euh, national donc il faut vraiment nous préparer le yépp et inshallah après local si nous ñu mais euh, euh, en attendant, bien sûr, mon moment le nommé euh, coordinateur, mais il fallait bien que mon nomme ni coordinateur, ni nommé secrétaire général national. Ce c'est pas démocratique. Donc lolo d'abord bien sûr mu ñu Nous situation parti nous am am tey jii eh, def ko situation sunu otage politique yi eh, waxtaan ak mom eh, pour xol dal nan la parti bi war a gën jogat taxaw. Mm-hmm. parce que mom moy sunu sunu sunu principal responsable. moy moy responsable parti d'accord ñu dess ci Abdoulaye wad ak ñëwam bi ak limu mu tombé junj nga ko sànq mooy doomam ji nga xamni dal daal bu ñu sukkandikoo ci xabar moy né danañu ko àtte ji ci tribunal spécial bi ci cour spécial bi. Euh, est-ce que tamit manam mom su ñëwee lolu te mënul indi dal manam beneenu jafé jafé dal ci walu wu ni mel parce que doomam ñu téye ko ci kasso bi moom mënoon a toog mu ne day ñëw est-ce que du yee fitna pour wax wax di waa xam nga suñu secrétaire général national. on a le moom mooy secrétaire général national parti démocratique sénégalais. ñu mm-hmm. am jafé jafé yi politique yi euh, ñom Karim ñom Aïda ñom Aziz ak yeneen responsable yu ñu japp yi tëj. Euh, yooyu situation bu am bu am solo la waroon na ñëw en tant que secrétaire général national nous ngi si presque chaque jour wax na la ko ba ngeen Paris chaque jour dans ce waxtaan ak mais il faut quelque part mu toog nous xool vraiment situation bi joxe aussi yenn instruction yi à l'ensemble de ses responsables xool euh, parti bi xool aussi ña nga xam ne sax bokk na ci parti bi ah, parce que am na ñu bare ña xam ne ñoo am seen parti mais nekk suñu ay alliés wala nekk sax

Il si aller allée de centenaire donc boulevard général de Gaulle angle rue 25 nous koy ñu tertu massivement peuple ñu ak meeting euh, euh, pour mu aussi mu wax ak peuple sénégalais mu wax ak militants mais mu wax peuple sénégalais si lu ko lu tax mu lu tax mu militants yi mu wax ak ñu ko foo mënti dugg léegi so jëloon taxi so jëloon car so jëloon car rapide foo mënti dugg ñi dal wax ablay wad na mënun ko. man bu jógee aéroport dal ci gatal ba ngeen dalal ko ba pare day jubali centenaire ci meeting bu wa PDS di organiser. waaw inshallah loolu def suñ joggé fofu rek ñoom ñu ak yéen ko xam ne ñi daan bari hmm. xam nga nak c'est wad mom ñop gëna nitu mbolo la ah nitu mbolo la su ñëwee ñëpp daan ku ñu daan ñëw teertu yu ko aéroport ñëpp daan and ak mom mais mais nak mais nag fàttalikul tam nekkatoo len ci nguur gi de est-ce que tam bour d'accord na ci pouvoir bi fi ne est-ce que d'accord na ci. xam nga ñun déposé nañu altine. waaw si suba teel altine la la déposé euh, euh, disons euh, information. pour meeting. Oh, pour meeting bi. wa altine suba la laa ko déposé ni len euh, duñu bëgg def meeting centenaire. foofu ñu kon daawoon daawoon defee avant. Mhm. xalaatoon noonu ba noonu sax ba comme tawam na ay travaux. Euh, obélisque ñu ni bon mieux vaut euh, centenaire pour euh, mm-hmm. bon je déposé heures donc normalement trois jours trois jours francs mois, mais nous déposons bien avant hein, presque déposer quoi presque dix jours avant nous déposer meeting ah, meeting meeting meeting mais mais mais, mais trouble à public maanaam loo xam ne boo ko defee mu nar jur nag moom ab jiyee buur da lay tere. APR meeting yi ñuy meeting moom xam nga daf lay leer ni waaye meeting boo xam ne Ablaye Wade day jóge aéroport ñu gàttandu ko ba pare mu jubali ci ab meeting Ablaye Wade. mais eh, ah, Ablaye Wade Ablaye Wade sénégalais la wala. non sénégalais la kay. sénégalais la responsable parti la. waaw ancien président la mais responsable parti la. contexte bi mu ñëwee nag. contexte bi mu ñëwee mooy mi gëj na Sénégal. ça fait ah. deux ans gëj na Sénégal. am na yu bare bare xew si ginnaawam. mu ñëw que si peuple bi fekk si partem ak si ak yeneen otage yi ñoom bu dina permis permis oh, politique ngi prison si maison d'arrêt euh, nga ni euh, régime Macky Sall mo len moo fofu dugal foofu da leen seet si comme mën naa ko wax euh, euh, tout de suite mais déjà su ñëwee duñ bëgg mu wax ak peuple bi mu wax ak militant mi mu wax ak mbokam yi mu wax ak nit ñi ni len fan la tollu ñi ñëpp gis ko xamni machallah mm-hmm. hein gis ko yow ba ngi ci Paris. daa dëgg ah xam ne daal moom dafa dëgër. dëgër na mi ngi gën a dëgër tey. mi ngi gën a dëgër tey mi ngi gën a tey tey. d'accord mooy. suñu général mooy mooy mooy engagé mooy mooy mooy suñu général. mais est-ce que Ablaye Wade moom nekkul ne moom daal li ñuy faral di wax naan opposant rek éternel comme ni ko ñenn ñi di wooyee moom moom moom moom moom nekk opposant daal moo ko gënal daal mel ni sa jiite. non oui euh, Ahmed xam nga nag kan moo tabax Sénégal. Hmm. kan moo defar la Sénégal nga xam ne ku nekk mën na si teg sa bët. xam nga opposant la woon mais bu mu jëlee nguur gi lu mu def pour ñu effacer ko pour ñu effacer ko si aduna bi yaakaar naa ni il faut des générations et des générations opposant la nekkoon mais lu mu gëmee Sénégal gëmee Afrique yaakaar naa ni kenn du gis ku mel na ko moom. non waxuñu ne defu fi dara kay ndax am na yoo xam ne boo génnee di nga gis ñu ne lii ci nguuru Abdoulaye Wade lañ ko fi tabax. la la la waaye mais mais moom même bi mu nekkee ci nguur gi sax gis nga front yi doon faral di ubbeeku ba nit ñi ne Ablaye moom daa mel ni moom affaire bi di jax da koy neex bu bëggee ñëwaat encore ci contexte bii nii tamit est-ce que duñ foog ne dafa ñëw pour opposer wu. non bon moom nekkul nekkul nekkul le parti au pouvoir hein nekkul majorité présidentielle. tey jii ah, xam naa loolu. tey jii mi ngi diriger principal parti de l'opposition loolu mooy mooy mooy mooy mooy lu mu am ah mooy mooy responsabilité bu mu am donc su ñëwee dana wax mais ñu xam ne nitu jàmm la nag Abdoulaye Wade suñu wet dana wax waxu jàmm. PDS kay chaque jour ñu jiin leen ne ñoom kay jaxal rek. non ñun jàmm ñun jàmm jàmm bu nekk ñoo ngi def ñoo ngi def période bi yaa ngi dëkk yu bëri ñoo ngi def ay meeting di waxtaan ak nit ñi wane suñu doole si jàmm am ña xam nag ñoo ngi wut ay pistolet di diirante seen biir di xeex di toj ay gaz lacrymogène ñooñu ñan lañ ñooñu moom mooy ñu waaye APR kon xam nga nitu jàmm ak nitu nitu nitu guerre nitu li nga xam dal bëggul jàmm ah. kooku xam. est-ce que nekkul ne tam opposition dafa am réalité pouvoir am réalité. pouvoir mooy jël pistolet di rente. ah déedéet. non moom xëy na ñoom seen parti bi nañu meloon bi ñu nekk ci opposition léegi màgg nañu ba jël nguur. enjeu day day daal di enjeu ku ci nekk da ngay bëgg nag maanaam nag. Euh, ah en waar ñun ak ñun Sénégal jàmm nu bëgg parti bi nekk parti jàmm. Hmm. Euh, moo taxoon sax ñu ni vraiment parti bu mel ne APR war nañu ko xoolaat parce que euh, jàmm la indul daal jàmm si réew mi. d' accord léegi nañ ñëw ci euh, créé bi bala ñuy dem ci delluwaat encore ci ñëw Ablaye Wade bi bu ñu ko temps bi mayee kon léegi daal Karim Wade moom buur jàpp na ne dañ ko war a àtte coow li nag bëri woon na wax nañ ko ñaari yoon indil li nga li nga denc bërëb nàngal ñaari mise en demeure ñu ne xam naa moom du ñett far nag ñettul sax ci xibaar yi ñu jot mooy ne léegi moom tribunal la jëm. waaw ah. bi ngeen koy yéegee léegi lan moo nekkoon seen réaction. d' abord xam nga fan yii yëpp ñoom ñoo ngi doon annoncé

kenn warul donc jàpp kenn te am solo parce que moom moo déposé woon xam nga euh, lu ñuy wax composition gouvernement dafa am composition gouvernement. de mm-hmm. la même composition gouvernement décret moo koy def euh, justice dafa am composition justice. Mm-hmm. la loi moo koy def. Mm-hmm. donc moom loi loi boobu mu présenté woon composition justice moom moo ko présenté woon à l'Assemblée assemblée nationale euh, ce que décret la Macky Sall signé avec premier ministre Mon moni, ni mu bu muy def composition euh, justice bi lan composition justice bi donc juridiction yu am yi dindi créé et ba léegi so xolé loi yi créé nekul comme juridiction bu am si réew depuis 1984. mais mais xam nga xam nga lolu tam li ci xaw a euh, Abdou Diouf mais am na nguur gu fi jaar ba beneen nguur jaaraat fi est ce que tam Abdoulaye Wade yéen ci seen yoriñ foofu tam xaw leen fa woon est ce que defoo leen fa sax erreur waxuma xaw a def mais defoo leen fa tam euh, ab erreur. non lu def erreur lu amul. amul lu amul doo ko indi doo ko indiwaat wala nga effacé ko amul. ah mais yéen bi ngeen ñëwee lan moo tax gënoo leen ko woon leeral comme avant muy dal seen kaw ni ko ñoom maître Doudou Ndoye leeralee nii. non xam nga maître Doudou moom comme moom moo demoon assemblée. waaw présenté ko au nom du gouvernement de boobu. waaw xam nga moom moo tax moom moo leeral ni lu tax ñu dindi CREI période boobu du bu ñu dindee hmm. bien sûr am na ay euh, soo defee yenn jëy yi am na yeneen juridiction yu la war a juger hmm. mais pas créer. expliqué na ko bu baax a c'est comme xam nga euh, composition gouvernement rek bu changé am temps yi xam ne amoon ministre patrimoine bâti et construction amatul décret moo ko changé donc de la même manière donc euh, loi bi dafa ñëw changé composition

avocat yi wane nañu dossier yëpp wane na ni amul benn jéye xool nu xoolaat pendant un an alors que six mois maximum nu waroon am pendant un an ñuy xool ñu xoolaat gisuñu fa dara. donc moom ay avocat am. mooy mooy avocat am waaye ah, càmbarkat yi kay génnee nañ dara. non càmbarkat yi xam xam nga chaque fois suñu génnee. Hmm. ñu daan wane ni euh, lu ñu génnee euh, disons amul amul mana amul mana te soo xoolee bu baax ñu ni ñoom suñu su naan commencé suñu campagne électorale campagne électorale.

mënti japp dugal si mbirum euh, euh, euh, si mbirum créé wala sax si mbirum yenen parce que lu amone si su kon dara amone sax si ngour Abdoulaye Wade ñëpp xam nañu tey jii la gën raw ah donc corruption bi kenn xamul dang koy wax mu mu leer moy nger fu mu tollu tay kenn xalaatuloo ni Sénégal dana man toll toll té wax na leen ba tay woo leen ma seen ma woy na leen wax fan ak fan

si euh, si mais mais est tamit ñoom ci benn côté tam li ñu def aay na dénkoon nañu Umar Sarr ak ñoom Karim Wade ak ñoom maître Ousmane Ngom ak ñoom Madické euh, ñooñu wàcc nañu. nee nañ leen kaay leen léegi ngeen ñëw nag wax ñu nag maanaam liñ li li leen askan wi dénkoon loolu est-ce que aay na. mais dañu gis ne waa parti démocratique sénégalais moom. non ñoom moom moom. Ahmed bëgguñ dégg loolu. Ahmed ñun ñoo ñëkk wax loolu. dernier dernier gouvernement dernier conseil des ministres. waaw Abdoulaye Wade ba ni prépare leen seen dossier. dem leen su leen wooyee ngeen expliqué bu baax a baax la ngeen def ak nan ngeen ko defee nun ñoo njëkk laaj loolu moo ne ko reddition des comptes nun ñoo ko njëkk laaj ñu ni gouvernement bu mënti jeex nguur bu mënti jeex da nga war a def reddition des comptes. mais pourquoi donc coow lii yëpp. mais Karim Wade dañoo gis saa yi bu ñu ko wooyee créé rek wala dossier am attekat ne nangam sangam coow li mel ni tulleeg male dama lay laaj par exemple dama lay dama lay eh, dama lay rappelé. waaw keroog par exemple bu affaire ndox mi amee. Uh-huh ñu ni ah c'est Sénégal am na euh, pendant 10 jours pratiquement Dakar amul ndox ñom seen njëkk déclaration bu ñu njëkk ñu ni bon daan daan dem xool ah ministre yu signé mbir yi eh, daan xol nu leen di sanctionner su leen wara yobu justice daan leen yobu justice parce que am na lu nga xamni normal normalul ñu leen alhamdoulillah kon gëstu leen ñom ñu gëstu ben fan xam ne ñaari fan ñew xol ni ministre bu ko signé won moy Macky Sall ñu noppi waxtu ndar

bon voilà Sénégal mi ngi ne kon léegi Karim eh, eh, léegi daan ko bàyyi xëy daan ko libéré wala daan koy wàññi wàññi lu ñu koy tëj mais du amati eh, droit pour def politique wala du pour présenter ko candidat si élection présidentielle ah, pour yow daal maanaam Karim moom àtte àtte bi yëpp dañ ko bëgg a éliminer. mais oui c' est clair depuis le départ politiquement politiquement ko bëgg a éliminer depuis le départ hein ñoom ñoo xool euh, ku leen xaw a gêné xam nga yàlla yàlla ngi fii pour ñëpp. mais euh, du yaakaar ni mënuñu njuuj ba njuujal la. mais ñoom ñu ñu ñu jéem a éliminer politiquement Karim Wade te fi Karim lan lay peese ci wàllum politique par rapport ak yéen. non xam nga euh, euh, PDS nu mu nekkee. waaw. waruloo xeeb kenn. am na ñu garaaw Karim am na ñu bare ci senegal am na xam ne ñoo ngi PDS am ñu sa xam ne xam ne nekkuñu PDS mais ñoo ngi ñoo ngi koy jàppale am na ay mouvement yu bare yu bare xam ne man man ñoo ngi koy jàppale. xëy na ñoom xalaat nañu ci seen analyse nu su fekkee euh, PDS moo présenté euh, euh, Karim ñoom daanu am ay jafe-jafe pour amaat nguur gi en 2017 xëy na xalaatuñ ko ci keneen ci nun walla ci nun ñëpp d'ailleurs ñoo ngi yore ay dossier saa yu la neexee ñu woonu tey woon Karim man woon ma benn yoon ñaari yoon di ma interroger kon yow moom ñu ngi téye sa dossier quoi. waaw di tappale rek léegi dañuy xaar ba nga jaxal rek ñu woo la. waaw ku nekk man ko téye ku nekk ñoo yore dossier am teeku ñu ni su suñu éliminé xëy Karim ba pare dañu éliminé keneen ak keneen ak keneen. Mhm. comme ay seen cinéma bu ñuy def wala leen vraiment damay xool leen xool man ni ay grand comédien noonu waroon dem vraiment grand tête pour wane euh, ni seen seen foo yu ñuy def pour yaakaar ni mën nax nit ñi mën nax peuple bi pendant longtemps donc mhm. loolu. mais yéen daal fi mu nekk nii kon yéen jàpp ngeen wala sóoraale ngeen ne daal euh, maanaam sóoraale ngeen ne kon Karim Wade moom gars yi dinañ ko àtte te dinañ ko tëj yéen est-ce que jàpp ngeen loolu moom mais ñoom loolu ñu bëgg CREI yi xam nga wanaa leen juridiction xam naa loolu mais dama ne est-ce que yéen sóoraale ngeen loolu ne Karim mii juin la ñu wax kii moom dañ koy tëj waaw bàyyi leen yàllaa ngi fi pour ñëpp xam nga yàllaa ngi fi pour ñëpp

suñ si biir plan bi Ablaye Wade waroon na ñëw si mu ngi bokk si sunu. gis gis gisu euh, politique si Sénégal Ablaye Wade secrétaire général national xam ne yàgg na xam na ñëpp et ku am fii euh, dara ñu bare en tout cas ñu am ñu dara si moom nu jaar. ñu ci mel na. ñu ko mel na Macky Sall su ko Ablaye Wade dimbale woon ja euh, placé woon si neneen du am. lu mu am tey mais moom mais it lan la dimbalee itam Ablaye Wade nag. lan la ko présidentielle yi kay ñëpp gis nañ Macky Sall taxaw ba mu ca taxaw ca 2007. nekk directeur de campagne. Macky Sall bi ngeen fi jaaxlee. chantier moom moo ko génnee moo ko door. Eh, yow yow yow tam ah, eh, eh, yow Ahmed Ahmed ñoom ñoo ko wax. kan moo ko wax. kan kan moo commencé chantier. no xam ngeen bu baax xam nga dam lay wax. xam nga dam lay xam le woon nag carrément ne Macky moom liggéeykat la moom. Ahmed dam lay expliquer bu baax. xam nga man. liggéey euh, liggéeykat la kenn kenn euh, man wax man wax lool man da ngay xam ne nag nguur Ablaye Wade yëpp. amoon na ay premier ministre premier ministre ku nekk yaa ngi doon def sa liggéey. mais Ablaye Wade si boppam moo nekkoon si kanam. moo nekkoon si kanam cest à si kanam liggéey yu bare bare bare moom mooy mooy xool lu koy plan yi mooy waxtaan ak ñu waxtaane mm-hmm. defar yenn yi si boppam. Mm-hmm. yakana naa sax yoy mo gënoon sonal parce que vraiment fu mu dem mi xol xool Sénégal am xamni yenn plan yi moko def ay plan xam mo so démé su ma jun moom ak tunnel bi mom mo xalat ni il faut ñu def tunnel ken warul def par exemple ken warul enjambé euh, euh, euh, foofu si su mbéjun am na xam ne si boppam ay am na xam ne sax moko ko dessiné comme comme yuñ liggéey yuñ liggéey ay jaxay yooyu ay plan yu yenn plan yu mel noonu autoroute bi mom mo gëna a engagé si autoroute yi aussi mom moko euh, liggéey ak Karim Wade mii euh, donc so waxé ni Karim wad liggéeyul Ablaye wad nekkul si kanam yakal na ngay juum donc Ablaye wad quel que soit le premier ministre premier ministre nek di coordonné. waxuma ni Ablaye newul ci kanam de. déet ko koy mën président de la république ba pare te nekk ci kanam. xam nga dans euh, dans un régime bu régime présidentiel. Mhm. xëy na mënuñu xalat ni premier ministre mëna am benen benen rôle. Mhm. mais ñom sax sen nguur gi ñu ñuy xalat yenn say ñu ne ñu supprimer poste premier ministre c'est qu'il y a.

ma euh, madame ma Madior booy aussi ñoom ñëpp ñu nekkoon premier mu nekkoon premier euh, premier premier ministre bu Abdoulaye Wade en en ñoom ñëpp ku nekk daal dem ko dem ko sa liggéey. Mhm. bon donc mais euh, Abdoulaye Wade moom mel noonu dafay engagé wu moom totalement. Mhm. su su su gëmee dara moom mooy jiitu ci si liggéey bi du bàyyi rek disons ñeneen ñi di liggéey moom mu. mu nekk moom mu toog ñu dem publicité dellusiwaat. kenn du ko tee. waaw seen ci rek sest la am. bis bu rëy. doomu réew mi moo xewle. xam nga le 25. le 25 dañuy ñëw dal seen kaw. tànn biir bu rëy. tudd tànn biir te tuddoo mbaaco rek def nga erreur. tànn biir xanaa kooku nag muy muy bëgg nag tubaarkaale dafa bëgg xanaa nag sum ñu ñu ñu ñu soobandoo. les arcs-en-ciel de ñu narat toj. stade Iba Mar moom na ma ñëpp xaar. le 25 stade Iba day toj. li ma nar ci bis bi du lu may wax. lu may jëfle. bésu kan muy Waly Seck. dañuy ànd ma wan leen sabar yi ma nar a dar. 48 tam-tam la nar a andi loolu dana neex lool. fu ñu sàjj ndakaaru yëngu. Baara Mbay ja ay tamit. roba ca cambal roba ca cambal roba ca cambal xam nga kooku yow it ah. ñu waa 5-5 fu ñu jaar buñ fa jógee dañ fay bàyyi terrasse. ki jaw ki jaw yaawa awa yéen a ngi ci biir Sen TV yéen a ko yor daal Wally Seck ngi lu bees. xale bi nag macha allah dëgg neexul mooy bomb nag. dama ni la am na zëzal am na vaay vaay am na soxor kenn. xale bi xew ci jamono ko àndut ak moom réer nga. Le Sénégal à l'heure de Dubaï. Ce 25 avril, des hommes d'affaires sénégalais et des partenaires des Émirats arabes unis se donnent rendez-vous à Dubaï pour la Première édition des Teranga Journey. Ce sera l'occasion de promouvoir la culture, le tourisme, l'image du Sénégal à travers des échanges entre les deux pays. Les Teranga Journey, sous l'égide de l'ambassadeur du Sénégal à Dubaï, son excellence Baba Karba, en partenariat avec la Sainte TV. Ce sera ce 25 avril 2014 à Dubaï. je fais poser t sur ma mixtape Yeah, on vient d'en bas, on veut viser la lune Automatiquement je pense au lot, autotune Les frères sont dans la demeure et moi j'opère, espère à mes rêves de billets parce que man xam naa ne bu jëlee ko rek dana pare. Gabaar Singh xeexul benn bu taxaw nan ëpp fer fër ngay xeex jëm ci amul ci làmb ji amul ci làmb ji l'argent qui dort, mais j'ai jamais sommeil. Tu te prends des coups de pression, on se prend des coups de soleil. Two-step, sans respect, je posé poser sur ma mixtape. Yeah, on vient d'en bas, on veut viser la lune. Automatiquement, je pense au lot. Autotune, les frères sont dans la demeure et moi j'opère. Les mecs sont tous les mêmes, fallait pas tous les

de son père, Wally Balagosek. L'enfant chéri de Dakar, Wally Balagosek. Le chouchou des jeunes filles, Wally Balagosek. Oui, le tonitruant garçon. Attention, anniversaire Wally Balagosek Bangok. Le 26, soirée au Grand Théâtre, entre 20 000, VIP 30 000 à partir de 20h. Ah, un théâtre va encore refuser du monde A ah, Wali Balago Lon Koko Koko Tude, Abdoumbaye Kempes A ah, affaire Bangok Nyoko Degondone, Mune, déggandoo de Fatou Balago Colle Omar Ndiaye Ami Galas Lo Bousso Nancy Dem Kati Création Amina Niang Ndiaye Madame Kane guddi gi ñaaña si Fatou Cissé Kiné Faye Nguylo Absalo Xujalo indi sow Masila Aïcha Lo Aïcha Fall Rama Fall Mariama Dia Yaa Jali Kani Mbaye Khady Cissé Karo Seydi Mamadou Goumbel nekk Congo Jili CBS Sadibou Ngaparou Monsieur Cheikh Yirim Seck Moussa Mboub CCBM ci Serigne Mboub nekk port autonome de Dakar yamuñu foofu de ñu ne guddi gi nag yéen ñii kat yéen a ko moom kii di Kaba madame Faye kii di Marème Sy madame Fallou Mbacké ñu koy wax Henriette maître Tamaro Seydi Tata Simone Awa Ndaw Latifa Maman Jigal guddi gàngoog yéen a ngoog waaye Nadoura na nga xam ni guddi gi sa guddi la maa joli yaa ko moom a ah, mbokk yi madame Papa Ngom Seydi ma ah, guddi gi yaa ko moom Degen Kane et Mariem guddi gi seen guddi la kon nag xew-xew baa ngoog yéen a ngoog wali Balago Seck ca Grand Théâtre entrée vingt mille VIP trente mille Wally Balago xew ci jamono saa yu tëggee ci Ndakaaru ñu xam ne Ndakaaru jaay am na xew te leen a jóg de Wally Balago aatu ma réeroon feeñ na ca ngéwél

le 29 juin bi le 29 avril bi ñu war déposer pour mën préparer élection au 29 juin bon nous depuis longtemps euh, xam na ni nguur gi tabay daal tabay wut yoon bu mu reporter même tey jii. bu élection yi. loolu la bëgg xam nga ajoon ko benn yoon 16 mars la war ensuite mu reporter ko mu 29 juin mais moom si xalaatam hmm. euh, mënoon ko encore reporter après 2014 ñu

mu ko yónni mu ñëw ni yéen daal il faut que ñu waxtaan ak nguur gi mais da ngeen nangu ñaari ñaari mbir laa bëgg ngeen nangu kooku kooku mu yónni woon kooku. ñoom ñoo ko yónni ci yéen. waaw mu ni ñaar la bëgg ñaari mbir la bëgg mooy ñu reporter élection yi mooy ñu dindi parité bi parce que. ah bon ñaar yooyu ñaar kooku. te nee na bon nee daal moom te bu bëgg jàmm si réew mi.

maanaam ñoom daal yoon bu ñu ajee élection yi la ñu wër. moom doon liggéey ñoom moom doon liggéey euh, wax nañu ko ci débat bi aussi décret convocation électeurs yi am na yeneen ak yeneen yi nga xam ne defuñu ko nu ko waree defee. am na xam ne sax mënoon ko rectifier ci loi bi ñu mujj indi mais rectifier wuñu ko bëgguñu ko rectifier ça veut dire que ñii vraiment seen su kon seen sago la ñu reporter élection yi mais ñun quand même ñoom ñoo ko waxoon xam nga ñoo ko waxoon ñun sax am na en tant xam amul amoon ay élections ñu ñu reporté bu nekkee ci nguur gi mais après du ñu xamni euh reporté élection jaaduwul so demee ba def démocratie bo gis so demee ba planifier élection ni ñu diko préparer. Hmm. loolu ñu signé ak ñeneen so soo xoolee bu baax ñu signé ak CDAO nga xol lu ñu signé ak yeneen organisme so demee ba dans les 6 mois là waruloo changer euh, ni date bi waruloo changer aussi même ay code électoral yooyu. xool xol ci 6 mois nous avons changé ñoom seen code électoral duñu bëggoon donc ñun ñu def benn recours CEDEAO xam ne d'accord ak ñun soo demee ba changé code électoral bii xam ne am point ay point désaccord yu am solo yu am nous, ñu ñu ñu waxe ko neneen mais damay revenir si désaccord yu amoon yi mm-hmm. ñetti désaccord principalement moo mm-hmm. mais benn désaccord bi bu am solo Moi, dun nii xam nga député yi député boo gis ku sa parti da ngay delloo mandat au député bi avons, comme ñu élection locale pour vraiment dëkk bi am morale politique Le conseil municipal bu nu fal wala conseil départemental bu nu fal soo parti dellool sa mandat ñu ñu ni du si dal kooku désaccord bu am solo sur la ville aussi nous ñu fait yu ñu def fii tey ñu euh, euh, liste proportionnelle sur la ville

élection sonn man sax préparé préparé nu suñ ko reporter ñu bañ ko reporter non paré non fo gis ci gox yi daan am ay gox ya nga xamni ni sunu biir PDS dana am ay yenn ciow yi c'est normal PDS parti bu mag la euh, si euh, six cent collectivités locales yëpp duñu duñu war a présenter donc c'est normal que de temps en temps hmm. mu am ay ciow ci bir PDS ki ni man ma ëpp doole ki ni man ma ëpp doole puisque ni placé wul carte yi mais donc dans l'ensemble PDS euh, mi ngi liggéey

parce que année yi ngay gagné xëj na nag amoo woon ab ministre affaires étrangères sa wet boo xamante ni li ngay yootu moom lay yootu bi yoon daal jàpp nga ne daggana moom te xam nga kala doon dooleel tam ci benn côté bi entre guillemets se jigéen bi gis nga natt bi ko dal waalo waalo bi. Mm, ah, waaw. xam nga xam nga dagana commune sax xëy na jarul ñu wax trop parce que yaakaar naa ni eh, xamante nu bu baax foofu. da koy gagné. Eh, xam xam nga la ma waxoon man lan laa waxoon xam nga wax naa ko keroog. ma ni sama demoon bay eh, nii damay perte Dagana damay bind gis Ablaye Wade ni ko vraiment perte naa Dagana yaa ma nomoon coordonnateur maa doon sa Samba Gagné ma comme per perte naa Dagana am sa poste coordonnateur dama ñeme la ma la may wax yow daal Dagana moom boo ko pertoon tey jële rek ñaanaluma la ko de. waaw da ngay jël lii Ablaye Wade takkal la ndox ma tànk delloo ko. delloo ko parce que loolu man amul sax. Ah, xanaa yow da ngaa wóolu

si euh, si gestion. waaw expliquer que lay expliqué kay ma jamono ji fay nek 18 ans yoyep est-ce que amone nga tamit ab rival wujju wo xamni amna am na ndomba bu tolni ministre affaires étrangères moo tax ma ne est-ce que ren affaire bi dina yomb. xam nga bu may gagné danga en 96. Mm-hmm. Euh, kan mo nekkoon premier ministre Habib Thiam. mo nekkoon premier ministre Abdou Diouf di wote Dagana dekk ko man Dagana di wote Dagana malgré ça ñu gagner Dagana premier ministre l'époque xam kon amna ay réalité yu am fofu c'est man ak sama mbokk yi ñu ñoo bokk yëpp amul benn différence soo demee foofu mën naa toog grand place bu nekk naan sama ataaya fii lekk sama gerte parce que man ak ñoom benn nu mu amul dara moo nekk naa. daal wóolu nga sa boppam. nekk naa ministre nekk naa lu nekk mais foofu kenn xewuma xewuma kenn man ak ñoom ñoo bokk lu mënti am. waxuma dagane rek wàll yëpp lu mënti am ñoo ko bokk ku nekk daa ma gis foofu ma ànd ak ñoom bokk ak ñoom tiis yi bokk noom lu leen am foofu xew yi ma and ak ñom bokk ak ñoom euh, euh, donc je pense que foofu euh, amna naa ni warul am problème pour ñu gagner élection yi. pour PDS gagner. ah oui oui pour hmm. PDS gagner non seulement élection commune bi mais son objectif moy gagner élection ci département bi parce que gox yop foofu gox yu ëpp déjà ñu ko gérer tay en tant que ci commune rurale wala ci commune mais amna ñu dem hmm. mais grande masse bi. Euh, xam nga wax naa ko wax naa ni assemblée keroog ba wax ni Sénégal am na Sénégal ñu am jom ak ñu ñàkk jom ñu ñàkk jom yi mooy ñuy dem nii mais Sénégal ñooñu am ñu jom ñoo ngi toog ànd ak ñun xam ne ñoo ngi parti ñoo ngi ci opposition tey mais ëllëg ëllëg soreetul ëllëg ñooy jëlaat nguur gi insha allah ëllëg yéenay jëlaat nguur gi bii mooy bii mooy doon ñaareelu élection waaye tamit euh, président Macky Sall tam bii daanaka genre référendum lay nekk ci moom waaw bon est-ce que est-ce que loolu tamit tamit doo xaw a diis tam ci mbaggu parti démocratique sénégalais. non xam nga ku nekk da ngay da ngay ñeme si la nga nekk. Hmm. Hmm? nga euh, du ñuy wax ni euh, ku bëgg akre da ngay ñeme kaani. Hmm. opposition te ba euh, yombul. nekkoon nun ko nun avant man ba ma jël Dagana en gagné Dagana en quatre-vingt-seize mais woon opposition xamoon naa difficulté yu amoon ñu gagné ko. ñu jël 2000 euh, euh, ñëw ñu ànd nguur gi 2002 ñu gagné élection ñu ngi demande élection en 2009 euh, ñu gagné waat élection bay ren ji ren ji xam nañu bu baax disons ay difficulté yu ñu am si yenn gox yi mais soo xamee si ay difficulté da ngay da ngay lay liggéey pour régler problème yooyu mais man wóor na ma ni sunu jàmbaar yu nekk si wàllu mais yu nekk si Sénégal yëpp ñoo ngi taxaw tey. département boo dem région boo dem gox boo dem ñoo ngi taxaw tey pour eh, wanaat ni eh, doole bi eh, ñoo ko yore te loolu moom chaque jour euh, chaque mën naa wax chaque heure sax moo wax ak ay yenn responsable yi ñu waxtaan si nguur gi ak yan mesure nu war a jël pour gën a taxaw ci élection locale yi di ñëw. sànq wax nga ko ñi nga xam ne daal dañuy dem partie bu daanoo rek nga gis ñenn ñu bëri daw. am na ñenn ñu ko defoon ci temps ñëw ci yéen PDS fi ne nii PDS am na ñuy daw ñu nga jëm daal maanaam euh, APR. est-ce que tamit loolu tamit waxtu yu jotul ngeen ngeen a sàkk daal wenn loi comme que yéen a ngi assemblée gis nañ sax maître Djibril waa oh, Djibril Waar taxaw ci loolu te sénégalais yu bëree bëri nag ngeen xam kook ñàkk koo xam yépp ci loolu la ñu d'accord maanaam yow moom fu tooy rek nga tag xam nga loolu. Hmm? loolu dafa doy waar parce que man dama gëw ma waa APR. wax dëgg yàlla Jibril sama sama sama xarit la sama mbokk la euh, sama cousin la donc mais gëwuma leen. gëmoo loolu muy bëgg a def. ñoom duñ ko waxee noonu rek parce que keroog duñ leen ni wote leen ak noonu balaa bu loi boobu di ñëw. Mhm. wote leen conseil municipal bu démissionné. perte mandat conseil municipal am ñoom wot ñu bañ ko voté. Euh, c'est vrai amoon na vote am na xam nga quarante et quelques contre xam lan am benn vote daal. bu bu amoon mais am na député yu bare bëggoon nañu voté ko mais ñoom APR ñoom ñoo xeex pour loolu bañ jàll. ñoom li ñuy wax gëmuñu ko daal. gëmuñu ko donc pour man seen théâtre théâtralisation de la politique boobu ñuy def xam naa mu ngi mel ne grand théâtre daal moom moom moom leen tabax tam. moom lañ leen tabax. mais ñenn ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci ci yenn jékki-jékki après dem ba ba ci gën a siiw nag moom moom mooy. Euh, bu Awa Ndiaye bi yéen instant boobu na loolu lan ko lan ngeen nan ngeen koy dundee boo leen jékki-jékki rek kenn yoxos ci yéen dem feneen. xam nga soo demee euh, en mars 2012 bu ñu perdre pouvoir bi bon Abdoulaye Wade sa ba wax ñu bare suñ ku nekk te ba waxtaan ak yow nii la euh, maa ngi lay gërëm ku nekk responsable yu si ëpp wax na la ak ñoom nii maa leen gërëm. Euh, wax ma rek loo loo bëgg soo demee soo demee si pouvoir bu bees bi walla nga bëgg a def leneen créer sa parti wala leen ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin mais la ngeen maa ngi leen gërëm si la ngeen ma jàppale pendant toutes ces années là ñëpp la wax loolu ku nekk mu ni ko yow nag yaay xool loo loo bëgg a décider am na ñenn ñu bare si nun du duñu toog ak moom ànd ak moom ci liggéey bi bon am na ñu nem naa ñu ko waxoon waxoon loolu ak moom ba pare defaat leneen. dem APR. waa dem APR wala wala bàyyi wala yu mel noonu mais ñooñu seen responsabilité la mais man dama dama yaakaar ni quand même nit te bay gore man loolu ci loolu laa la màggee ci loolu ma nun ma yare dana am ay jafe-jafe ya xam ne mën a am si àdduna jafe-jafe yooyu aussi da ngay gëm yàlla xam ni bon jafe-jafe ak àdduna ñoo ànd donc da ngay essayer xool la koy régler mais dem daal di di gore di parce que rek am na ay difficulté parce que yaa ngi si euh, parti ba nga xam ni yaa ngi si opposition tey nga ni daal balaa may balaa dara dem fa dem fa fekk ma daw fekk ñaa nga xam ni au moins ñooñu sama demee kenn du ma tëj kenn du ma sonal parce que wax naa ne mooy parti kumba am ndey ñun ñi nag amul ndey mais xam ngeen soo xoolee baax ak mën nga bañ nga am ndey ba pare yàlla jàppale la ba nga egg feneen fa xam ne sa njort sax eggu foon kon moo tax ma ni eh, da ngay goree daal àdduna bay eh, lu luy fekk lu fi war a fekk fekk la fa. fekk la fa mais est-ce que mooy ci njuumte yooyu ma la doon limal sànq tam Pédestam tamit nekkul ne maanaam dañ ko melni lu xaw fay borom parce que gissone nañ yenn socialiste yoo xam bañ jaxé dañoo daw PDS gars yi gàttandu leen tamit PDS tam am ño xamni jax nañu wara dem ci yoon daw APR. waaw xam nga lolu mu ko cest au début alternance en en deux mille c'était la première alternance xam amna expérience ba xamni kenn kenn xamuko won avant mais bobu la première fois nit ñi mënoon xalat ni euh, am na ay njumtu yu am ay wax am mais léegi am alternance amaat alternance ñi nga xam ni premier tour premier premier alternance bi ñu jógee PS ñëw mhm. deuxième alternance bi ñu gaawantu jóge PDS dem si pouvoir bu APR am nga xam donc pouvoir c'est seen parti mooy nguur est-ce que loolu tam bu tamit euh, politiciens nekk ci réew mi daal maanaam dinañ dem ba amati yenn daraje yenn crédibilité yi. non non pour man non pour man lu ñu woowee sax moo moo transhumance pour man léegi la gën a am léegi léegi léegi la gën a am solo parce que xam nga transhumance euh, bàyyi ma. Eh, eh, ma yi lañ ko doon gis. waaw waaw fu am ñax rek nga daw. nga daw moom lu ñu woowee transhumance bon loolu moom malheureusement euh, mooy am moo am. sens léegi mais ñu njëkkoon ñëw jàppale Ablaye Wade pour liggéey réew mi man.

jàpp ne du yoon ñen ñi jàpp ne yoon la parce que dafa am keuyit ci walu bi yoon mom ci bopam xam nga man xamu bu baax lutax ñu téré ko mais je me dis que euh, c'est pas parce que rek parce que demna defna ay tiant mo demé magal bi defna ay tiant fenen ak fenen donc c'est pas parce que rek euh, am amna am ay problème ak yoon wi que ñu interdire ko lolu amna sax ñu ni ma. xëy duñ ko interdire pour mën a interdire meeting aussi euh, parti démocratique sénégalais bi muy def pour euh, terfu euh, Ablaye Ablaye Wade xam na wax yu am si si loolu mais pour man vraiment euh, jàppale xam nga démocratie moo moo moo war loolu donc il faut que jàppale man vraiment dama dama ni gouvernement bi régime bi amul woon droit xañ lu mel noonu Cheikh Béthio Cheikh Béthio ku nekk xam na lu mu représenté si si réew mi

góorgóorlu liggéey joxonte loxo di ñëw heure di wàcc heure wàññi tappale bee comme li li leen doon ji <laughs> mais xam nga tappale ah. wàññi ah, tappale président de la République xam nga suñu bëggee wàññi tappale mooy nekk ba élection locale yaa ngi jub si ngay commence di def ay conseil de bay woon ko bu yàgg mais conseil non non dafa amoon agenda bu agenda bu chargé Sénégal émergent dem na fi Chine fu ne élection xam nga élection locale yi moom moo moom moo jub si hmm. ñu ñoo ngi def encore seen conseil eh, eh, des ministres eh, décentralisés jeex na bu bu mu njëkkee def seen conseil bi élection euh, élection législative bi loolu la def commencé dem ay département yu bare man ñëw na sax bay côté sa Dagana yooyu Saint-Louis hmm. suñu tête liste euh, département Dagana mu fexe bay bay wëlbati ak yu mel noonu yaakaar ne dana dana dana changé mais donc loolu lay def le continuer di def au niveau du Sénégal bon moo tax mu def conseil et décentralisé man non naa sax suñu responsable yi ñun fu mu def conseil euh, des ministres décentralisé ñu war def jour bobu dem def suñu comité directeur décentralisé pour faire face parce que même caaxaan euh, essence bobu mbaa attalati ngeen ko. Euh, quand même xam gars yi ne la yéen a ngi toogaale. gars yi ne la léegi la ñu toog PDS position bu am milliard. milliard xam ñom ñoo xam xam nañu baax lu nekk suñu compte yi. xam du moom fu mu bëgg a dem conseil des ministres nga xam nga nag su pour ñu bëgg def comité comité directeur xam nga am na aussi ay sénégalais nga xam ni euh, daanu jàppale euh, si si mbir yu mel noonu suñu suñu bëggoon def yenn yi euh, am na sénégalais yu bari yu mer tey yu mere nguur yu amalal sax mere nguuru Macky Sall parce que lu muy yàqee Sénégal ni mu leen di def d'accord léegi laaj bu mujj bi rek mooy bu ñu demoon nag bañ ne tey yéen ñi tere nañ leen doo leen fi meeting beneen plan B bi waaw xam nga nag lu nekk da ngay da nga koy. non boobu plan A la di ngeen meeting. waaw mais boo leen demoon léegi nii rek ministre de l'intérieur ne leen doo leen doo leen meeting. waaw à ce moment là daan def leneen mais daan def leneen mais xam nga. soo ñëwee soo ñëwee nii plan A bi nii plan B bi plan C xam nga plan da dugal plan A bi nëbb sa plan B. sa su plan A bi amul nga génne plan B bi soom suñu bañee plan B bi nga wut sa beneen plan. plan C. yéen daal bu Ablaye ñëwee il fa ngeen def dara. Ablaye Gueye Sénégal moko bëgg accueillir Sénégal yëpp ñoo bëgg dem aéroport xamna naa ni jour bobu ñom daan fexé bay def seen takkandeer yi pour empêcher nit ñi wala yu mel noonu. mais Sénégal yëpp ñoo bëgg accueillir le président Abdoulaye Wade secrétaire général national du parti démocratique sénégalais ñun daan fa dem Sénégal yëpp daan fa dem parti démocratique sénégalais yëpp daan fa dem xale daan fa dem jigéen ñi daan fa dem mag ñi daan dem daan fa dem def après donc suñu démonstration de force Sénégal yëpp ñoo ko ñoo Sénégal et ni vraiment mi ngi président émission seen jotaay ko honorable député maire bu Dagana Oumar parti démocratique sénégalais di leen jox kon dig